dañu dem seeti madame Viviane wadd dafay jàng karaté pour lan parce que nee na bu fekkee ne Macky Sall li lay wadd wax mën na koo jëfee ndax moom xam na Ablaye wadd léegi nag du bàyyi Ablaye Wade di xaru muy perte kenn du ko laal kenn du jege Ablaye Wade ndax mu ngi jàngi karaté pour en cas bu policier yi ñëwee pour arrêter ab arrêter Karim Wade moom mu évacuer leen évacuer njabootam rawale leen mu dem loolu la ñu xool jàng boobu fa lay mujjee ñu seeti madame Viviane ca biir jàngam ba ठीक है और जीती क्या कुछ ñëw leen nii ñëw leen nii daf ñuy jàngal karaté ñëw leen nii chauffeur mbay chauffeur ñëwal nii pour Ablaye buy ñëw bu koy jël buñ ko jógee garde rapproché bi Karim c'est le garde rapproché de Karim c'est mon chauffeur sama géwal sama secrétaire pour bu am Wade ñëwee jas buñ naree laal Karim ñu téye ko évacuer ko balaa muy xaru Aïcha na dem ko. ci kii ci kii. ci kii ci ko. ah oui. ah yow. ci ci ya. ca ca waa waa waa. waa. Очень. Чуки. Хи. Хи. Пуша лияк мы лукри. Чуки. Чуки. Чуки. Я. Все там. Чего? Не ле. Сюда, видишь? शुक्राने तो नहीं ठीक होगा अच्छी तो वही था अच्छी मल मुझे अंगे लेती है मैं अच्छा इनको पहनने पहनने अच्छी अच्छा का खुशी है अच्छा खुशी हुई हाँ अच्छा ठीक है ते मैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते मैं ते मैं अच्छा का用枕头，一会儿给阿姨地图哎。 ma ci ko am. yooyu yooyu jëlee Ablaye aéroport xoolal bu baax. coono. Ah! ci demel. yooyu yaay jëlee Karim aéroport demel. ci ci. wó. yàlla. maa ci des. jigéen ña. jigéen. tukku. ah. Hmm. yéen. ah. merci. ci kaw tuuti kii ceeb ki nan leen def. suba amaan na.